dooree ko ak euh, Abdoulaye Seck mi ñu jàppe ak dix-huit kilos yi cocaïne journal yi baree bari nag dugal ci turu sa Seck xëy na li mun bàyyam siiw moo tax ñu dugal ko ci waaye daal Assane suñu gaay yi def nañ ak njàmbarte ba jàppaat lenn loo xam ni luy dofloo ak lu indi ay jéyee la ci réew mi muy lu bon lii nga xam ni ñi dañ koy fóon dégg naa ñii di ko def lu nekk euh, te muy yàq ndaw ñi. wax naa xaw si am mbetteel rek. Mm-hmm. ndax tey jii boo dee xool boo demee kaso bee ñu si bari di leen jàpp si ay laxas ay booy yu toogoon di tux ay nangam nangam li ñu leen fekkee matul sax liibar ñu tëj leen si kaso ñoom ñëpp. Mm-hmm. ndekete boobu ponkal yii ñoo ko daan indi ngir seen tur wala fi ñu làqatu mm-hmm. lii nag wax dëgg yàlla booy bi waru ko woon a def ndax baayam mm-hmm. bi mu koy yaree ba mu jàng ba mu kii baayam waroon naa xam booy bi si lan la nekk di ko pot siifur. baayam daa yore milliard sax lu war a doyee lii. Hmm? baayam yorob Hmm. bàyyam yor na ni gaañ ci dëkk bi nekk politicien ah, xam nga nit ki bu fekkee ni nee nañ yor nañ lu ñu gaañ ñu hmm. fekk ko cocaïne dañu yaakaar ni li ñu gaañ lépp ci cocaïne bi la jógee ah. tam moo tax cocaïne beeg yor bi danga koy xaajale ok muy wax bi rek léegi <laughs> di dëgg dëgg dëgg am am ko bëgg a wéer cocaïne bi na doon baay bi dëgg la aywa <laughs> léegi nag booy bi dafa war a na siggil baayam waaw da ko war na siggil quoi ndax sa baay bu tollee fenn fi demoon ba doon politicien bu mag nga xam ne mënoo tudd Sénégal te tuddoo Idriss Seck. Mm-hmm. sa baay wàccaat ba ba wàcc na ba kenn tuddatu ko maanaam sa baay mi mi wàcc na daal kooku nu war a siggil sa baay nga war a def waaye wuroo xoolaat luy gën a naaj sa baay si suuf te lii siggilut idi. non li idi yoonam nekku ci. non am na lu ko si metti trop. waaw mais yoonam nekku ci bu wax loolu sooy. non bu defee lu ko neex. yoonu baay bi la illallah bu ko sañoon sa dooma fii gën. dëgg la bu tëyee nag. Hmm? bu tëwee bu tëyee nga jël ko yóbbu ko sa daara ja booy bi tëw weesugu daara booy bi dafa war na dem daara xam nga ni ponk ponkulum 4-4 mi mu yor. Hmm? Assane kii ngay yóbbu daara. waaw kii di booy bu ndaw nga. kii ak tatouage lii de si dara. kii dara ëpp sikkim yéen a tolloo sikkim di da ngeen man da ngeen a nuroo yow fi nii da ngaa yaakaar weesu dem daara. waaw man weesu naa man mu ko ah, yóbboo boo ñu fi tëyee maag mi dañu lay jël yóbbu la daara <laughs> bu yaakaar ni mukk weesu nga daara boo ko yaakaar yaa ngi nax sa bopp man xam ba ma yóbbu daal sax du baax <laughs> damay influencé wa daara man damay yàq daara ji soo ma fa yóbbu du baax moo tax xale bu xamul dara la ñu yóbbu daara man boo ma yóbbu damay influencé sëriñ daara bi influencé daara ji xam nga xam nga ndeysaan benn benn rakk sëriñ moom ko doon hmm. mu ne ma ñun bi sunu bàyyi génne àdduna ñun ñu doon ay ganaar dañoo ñibbi si ni duutu ñu dem daara sëriñ dafa xeex ak ñoom kenn ku nekk day xeex ak yow ba toog si sa biir hmm. xeex ak ñëpp boole leen luyeekaar rapide dugal leen ci yóbbu yóbbuwaat daara ji te ay ponkal lañ ay ponkal lañ macha allah maam bul yaakaar ni ponkal nga ponkal ba tënga daara mm. daara moom xalaa kulli aalin nit ñi dañ faa war di dellu kii nag il faut que Idriss jël ko yóbbu ko daara ah mais gars yi commentaire yi ñu ngi naan coppet yóbbu dikk yow nga bëgg ko def coppet yóbbu daara eh, coppet yóbbu dikk waaw ah, coppet yóbbu dikk ndeysaan joxe hélas ah déet luy joxe hélas hmm? ah. tout cas la sëgalut Idriss Seck kon alal ju bari ji daal bu ñu ko jiiñ politique bi hmm? nañ ko jiiñ liggéey la rek cocaïne bi liggéey la idi internet internet bi moo ko may alal internet bi moo ko indi Sénégal lii ñuy internet bi YouTube ak yooyu yëpp moo ko fi indi. Hmm. Hmm. Idrissa Seck fi indi. ce que ba léegi. Assane loolu Assane loolu foo ko déggee. wax naa la ko fi bu ko wax de loolu ñi nga sama kanam di. waaw Idrissa Seck moo fi moo indi internet Sénégal. non léegi jox ma argument yi leer. de man kay de xoolal commentaire yi wala nga diglu sa tip. maa ngi xool commentaire ba kenn weddi ko. tig mooy lan maa ngi di maa ngi diglu. kenn du ko weddi joxe hélas kenn du weddi Idriss Seck. fi di internet. yow eh, eh, joxal hélas. Assane li ma wax kay doo gis ku ko weddi. Assane Idrissa Seck. mënoo indi <laughs> luy firnde ni moo fi indi internet. waaw doo ko weddeet de joxe hélas. weddi <laughs> ma firnde gi. Eh, gaa nañ ma xool kii bi léegi xool naa fi gisuma dara. waaw gaa yi kay dañuy dem gëstu ji ñoom it man samay wax wax léegi léegi nga ñëw weddi léegi déedéet da ngay dem gëstu ji nañ gëstu ji ñoom ñëpp. yow yaa waaw ñoom ñi ngi gëstu ji xam nga mën nañ ni loolu amul. mais ñi wuñ ko wax ndax xam nañ li ma waxantu euh, yëkkati fi ne moo daan wax naan boo nee dara am na hmm. ku ko weddi yaa koy indi lu tax mu gëm ko indil ma lu tax mu gëm ko du ma la ko indilagun may bàyyi ba ñëpp weddi ko ma indil leen preuve may gisaguma ko weddi hélas mii dana ko leeral bu jëlee kàddu internet ci tappale nga ne moom waaw kon leeral na ko ci tappale nga ne ah. hmm. ko jox ko <laughs> leeralaale li waral tappale gi <laughs> alaaji Euh, Seck la sant euh, Abdoulaye. non da ko leeral de. wër na yaa da leeral li waral nga ni tappale laa ne. mbirum internet bi danga ko leeral. waaw bàyyi dina ci ñëw. non da ko leeral. bàyyi dina ci ñëw. waaw ah, baax na. da ko leeral dana ci ñëw incha euh, mu mel ni Abdoulaye mi 18 ko kilo la ñuy wax ni moom lañ ko jàppee xaalis ba nag bari na lool ndax kilo yee takk na. ñu jël Idrissa sekk ni ko làpp ci aw turam li daal ni mooy baayam jàngat bi nga def ci ñu fiy dugal yu bon yi ñaari saa yu ko xoolee ba ci biir rek ñu ni ay doomu borom barke lañu. waaw xam nga euh, pareen saay tey jii bu ñu tuddee ne doomu Idrissa Seck dégg nañ ko ci wàll moo xamante ni bii tey drogue dure <laughs> nga xamante ni. lu doy waar la dañ ko cee tudd mais xam naa ni enquête yi dina génne yeneen i mbir parce que mhm. du yemut ci moom mhm. ñan la doon liggéeyal ak mhm. ban circuit la nekkoon nag na la yëf yi demee et cetera mën na nekk mën na indiwaat yeneen mbir yoo xamante ne bi tey mbir yu doy waar la waaw te jàpp naa ni avec autorité yu bees yi nga xamante ne bi ñoo nekk ci réew mi oh. defe naa ni jub jubal jubbanti hmm. euh, keneen ku ca mën a taqee hmm. mën ngaa feeñ ci mbir yi da jàpp ni mbaal gi mën naa teq ñeneen waaw mën naa teq ñeneen parce que par exemple saa yi gars yi ci seeni position mën nañuy def loo xam ni Euh, li ñaan sefa catholique du nekk loo xamante ni bii lu tegu ci siraatal mustaxim la mën na am lu bari loo xamante ni bii mën nañu koy mbubboo mhm. di doxalee yeneen mbir ndax ci moom dong la yam ak loolu ay enquête ñooy wane yëf yi mhm. ndax kii laak lale en tout cas tudd nañ ci doomu koo xam ni euh, kilifa politique la mhm. yàgg lool ci yëf yi am na ñu naan bii mooy trois fois ñu jàpp ko ci ci commentaire yi. bii mooy trois fois ñu jàpp. waaw am na ñu koy bind ci commentaire kon xam nga jàpp yu njëkk yëpp peut-être. dañ ko daan làqar ci. daa war na arrêté nag. donc waa en bii yoon war nañu war na war na gën a leer xam nga àddina. Mhm. pareen saay euh, bu fekkente ne bi da nga nekk ci yenn position yi. Mhm. la plupart di nga dégg ñuy wax naan. tiw amul jot wala doomu borom barke la doomu lii la doomu laat pare saa yi nga gis doomu politiciens yoo xamante ni bii son bu nit ñuy def ak alal. dafa garaaw. te bu fekkente ne bi sa doom mi ngi def ak neen parce que am na yenn alal yoo xam ne bu ñu koy wax. di ko tuumaal ay nit. la plupart pareen saay day même ñoom bu ñu kii doom ya dañuy pasar pasareen maanaam da ngay gis doomu politiciens yoo xamante ni bii tey ni ñuy pasar pasareen c'est extraordinaire. te gis nga am na fu ñuy toll ci pasar pasaree mhm. dañuy nekk ci yeneen niveau de vie mhm. yeneen i mbir mooy nekk ci seen i mbir quoi comprendre parce que saa yi nga gis ci koo xamante ni ki doomu kilifa la goo xamante ni bi tegu na ci yoon doom ji loolu ñi ko ci am de sens lañu am mais am na ci ñu bari ñoo xamante ni bi eh, ñu ngi ci dund gu extraordinaire de mhm. léeg-léeg sax ñenn ñi ñooy feeñal ni seen papa sàcc la Mmh. parce que niveau de vie bi nga xam ne moom la ñuy mëne beneen saa yi moom la ñuy gis gis ni lii jaaduwut mmh. am na fi doomu ministre yoo xamante ne bi ci nguuru président Macky Sall nit ñi dañ leen wax ne fan lañ jëlee alal ji ñuy pasar pasare mmh. parce que liggéey nekkut loo xamante bi dañ koy liggéey mais dañ koy jël alalu réew mi la ñuy jël di ko fay loolu nag boo yaakaaree ni souvent da nga koy def mu jig la am na yoo xam ne bi du la jig waaw te pareen saay Euh, day commencé di feeñ waaw paren saa yenn yi ay jël la yoo xamante ni bii mën nay gën a metti mhm. parce que am na yu bari yoo xamante ni bii nag tey bu ñu taxawee ci jub jubal jubbanti mhm. mën nga découvrir at yeneen mbir yu baree bari yoo xamante ni bii di nga ko gis ci ñeneen mhm. ci ay personnalité et cetera parce que dañ lay wax ne la euh, yu bari yi am ci biir réew mi yu ñuy wax saa Cissé loo waxoon na ko fi loolu laa la bëggoon laaj am nay expliqué ne am na. nee na yu baree bari bëri. drogue bee ko tabax ko tabax. waaw wax na ko. comprendre nga. waaw ni buñ ma wooyee ma leeral. maanaam di nga gis ñoo xam ne xam nga xaalis drogue Assane dafa doy waar dafa compliqué. Mm-hmm. maanaam nit am na nu muy yoree alal. Mm-hmm. Euh, maanaam mën na lëkkaloog sax ay nit yoo xamante ni bii ñoo koy blanchiral xaalis bi maanaam seetal ko pour dugalaat ko ci circuit bi moo tax ma la doon wax ne la am na yu bari yoo xamante bi état bi waroon na ko càmbar ci yenn xaalis yu bari yoo xamante ne bii ñu ngi koy dégg yu ci mel nii xam nga euh, sunu mbokk mbër yi nii comprendre nga maanaam di wax loo xam ne xam nga tey Sénégal ngay gis réew moo xam ni tëgg nañ loo xamante ni bii tey leer na ñëpp nii kii dafa war a perte te chaque jour ñi ngi tëgg ci li ñuy annoncé. làmb joo xamante ni bii mënoo ah. jaay billet. loolu vingt millions dinañ ci ñëw. ah. non damay cofaale nii rek. loo xamante ni bii loo mënoo cee jaay nangam mënoo def lii nangam mënoo def lii nangam. et pourtant nit ñaa ngi tëgg. nga fay ay deux cent mille fan la xaalis bi di jóge. ah, ah am na xaalis yoo xamante ni bi nañ fexe mu jaar ci circuit bi rek. Mhm. nga am loo ciy am après yow mi ko fi fexe ba dugal ko ci jaar kii bi léeg nga gis benn waay bu ubbi fee ab ab ab boutique di jaay ñeex. ñu naan waa ñeex mi lay jaay. fekk ñeex mi lay sàngoo fekk ñeex ma du ñeex ju du ñeex lay jaay ñeex moom bu tuur woon sax yoonam newu ci. yaa ngi dégg naan non sa waaye léegi daay bi mu tàgg duggee ci njaayum ñeex mi ba ndëgg ni léegi affaire yi. non vraiment da ko wuyu si ñaan ñeexum njaayum ñeex mi da ko ñeex mi vraiment fekk njaayum ñeex mi mbubb la rek. mu ñu solo bu ko defee mu mel ni yaa ngi ci benn activité fekk xaalis boobu loolu même nga perte ko jël personnel ñàngal def ay kii comprendre nga. maanaam teg loo xamante ne bi day nuru yoon ngir nga mën a setal ay mbir. Hmm. am na yu bari yoo xamante ne bi noonu lay demee. Hmm. ubbi ay boutique def kii ak yëpp fekk tappale rek la. wuti hmm. tool. waaw tool yi de démb waxoon nga ci. mu ne tool yi de démb bañoon nga nee nga tool yi moom tool yi kii la rek. tool yi tey bañul xam ne gars yi bayuñu rek. tool yi gars yi bayuñu kii. bay naajo de dañuy dañuy samp bee benn ah. papaaya. ñëw samp bee benn mango. kañ nga gëj a lekk naajo. naajo daa mel ne toggatuñ. ah waaw ñu ngi bay naajo. naajo basant gi naa gis ci ndab de. <laughs> naajo basant nay ñëw waaye. yooyu la ñuy def rek yonent bi xaadim ngeen en tout cas daal a doon sooy ba. Mm-hmm. Euh, na leer parce que li Assane joxe exemple moom dafa am solo parce que li mu wax sànq am na ñoo xamante ni bii tey benn juin yàmbaa lañ leen jàppee. Ah moo leen ba ca kaso ba. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. donc nag gis. koo xamante ni li mu yor ñu wax dix huit kilo kilo yi nag yooyu. drogue diir yooyu ba noppi. duñ ko càmbar yooyu yëpp nañ ko càmbar fi amutut loi bi li mu war a xam mooy kii jëf ji mais pas kii hmm. doomu diw laa kii mooy lii ak kii mooy laa loi war sa xam loolu dañ ko tëgg noo xamante ni pour mu dox hmm. euh, lii lan la hmm. waaye du kii kan la d'accord boo te alaaji am démb am am na kuñ ma ci nettal benn femme boo xam ni salon la yor di liggéey liggéey bu dox mais far waa jubadi di jaay loolu léegi far wi daal di invité ndaw si këram bi gars yi ñëwee dafa descente jàpp faroo jàppaale ndaw si ndaw si fi mu toll nii ñetti weer ak nii mu tëdd ma nga kaso gars yi bi ñu defee enquête nee nañ comme na nga daan fanaan ci kër waa xamoon nga ni da koy jaay yéen ñaar a koy jaay ah waaw waaw bu ko xamee nag wax a waxtaanal bay génn ak moom bay génn ak moom nabante nabante la Euh, Assane nobal yàmba ah, nobante nga xam ne ki yàmba jaay waaw mais da nga na nopp nit koo dégg ñuy day dox yàmba bu la ñaanee waxuma la sa doom de mais sa mbokk di ko dama ko ñemee ñaan ah waaw mais déedéet mais ñoom xol <laughs> xol bëggante <laughs> ma wax ko ci antenne bi hmm? voilà bëggante bi saa il faut ñu wàcc benn micro ngeen di wax li ngeen di bëgg a wax foofu muy jàll dégg nga am na am na xalaat bu wax ci yàmba hmm. waaw waaw tab xam nga moom dafa 15. Ah, kon de kon de il faut ñuy wut loo xamante ni kuy dugg xëy si ñu teg ko si saag mi teint ñu xool la. fii xanaa waaw il ñu wut ko. am na saag yoo xam ne sa temps lu am solo lay wax. waaw ah, tribunal booy saagu tab bi. saagu bi kenn xamul lu ci dalul <laughs> xel dalul xel. wóor na la non te xoolal saagu topp bi alaaji lu nekk ci nekk lu ne ko na la saag bi comme kenkaay yi lu ne. <laughs>